dal leen ak jàmm ñu xëy taaxan yéene kaay xëyandoo tàmbale ko l'indépendant yéene kaay mi di édition bu appel bu Seydina Limaamu Laay foofee naka ca Yoff Layeen Yoff Layeen googee nag ñu ngay classe politique bi ñoom waa Yoff Layeen naka la ñuy ci classe politique rek moo ñu fexe rek ba bay jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj ndax ndax jàmm tamit la mën a nga xamante ci moo développement wu réew mi yéene l'évidence di kat ci du développement voilà wàllum jàmm développement la ñu naka seenum atum ren ji appel boobee su naka réew mi mun a jëm ci kanam El ingénieur informaticien sur la situation politique nationale bu dëkk bi nag la dal dee samp ci yéenekaay bi di l'évidence nee na rek mooy sauver Sénégal ci atum 2024 nee si jamono ji la ko gën mooy xàmmeetuñu homme politique Sénégal ndax nañu cultiver nañu fexe naka ba bay de défense Ousmane Sonko bi nga dañ koo sànni ca biti procès précise procès digganteem ak a yaatu fa mu taxawoon jógu fa la waxoon dindiwu ko nag appel bi nga xamante ni na ci Yoff Laay ñoom lañu

ak au peuple bi nga xamante ni ñoo nekk foofu ci Turquie ci nga xamante ni dalee na daal nag yëkkati na kobar yu bari daal di koy jébal ñi nga xamante ni si la stabilité le droit rien que le droit na jàpp ne nag la Macky Sall def ci chamboulement bi nga xamante ni moo jëm na si la la chambre d'accusation requête na nag nga xamante ni moom la défense bi sànni woon Ousmane Sonko joue la montre la juridiction nag mu ngi estimé li nga xamante ni moo de saisir conseil constitutionnel waaye nee na nag jaratu ko ndax daanaka nag leen loo xamante ni si la ci solo si kay mooy fintoon yi seen candidat yoo xamante si bu yeewi askanu nekk taxaw na ngir présidentielle 2024 yéene kaay bi samp ab laaj ndax ñoom danañu jàll kapu parrainage boobee nag na ci Ousmane Sonko bi ndax ñooñu nag dinañu franchir li nga xamante ni rek kapu parrainage les échos ci yéene kaay bi nag ak ki nga xamante ni la jóob moom itam yëkkatiwaat nay kàddu kamu ko jëmale di Ousmane Sonko comme na ko doon defee yëkkatiwaat kàddu yi xemeej nag dina am tout simplement interdit accès ville centre bu Touba nga xamante si moo di Ousmane Sonko nga ni ma lan enquête yéen a ak lu ana kan ñoom rek mooy nekk candidat ci atum 2024 docteur Moussa Diop moo ngay dénoncé mémés bi nga xamante si république bi am na ko naka ci classe politique bi loolu lay ñaawlu nag yéen kaay bi xëy na koo fësal leneen lu yor yor fësal nag moo di chamboulement jëm ci magistrature un Ousmane Sonko dee samp ndax gis na ne ñu fa teg yëpp daanaka nag booy xool nag àndul ñu ak ki xamante ni si moo di bëgg-bëgg Ousmane Sonko Sud Quotidien di ci candidature présidentielle yu atum daanaka naka coow li yëpp naka foofu la lalu opposition ku jégoo gi nag boo moytu moo nar doon nagu saraxu naka nguur gi ndax ci jamono ji nañu nar a tasaaroo bu ñu ko defee rek amaana naka bu ñu ñëwee naka ku nguur gi mun na leen def lu méttee métti gouvernance moo am foofee nag ci jamono ji nga xamante ñoo ngi tabaat naka ki war a jiite union africaine wax ci tàggat yaram ak ligue des champions bi ni ki nag ci diggante Liverpool ak Real Madrid Liverpool moomee ni ki nag Real Madrid da ko yàqate juróomi bal ci ñaar la fekk foofee ca dëkkam dal di ko koy dóor mu nekk nag defet bu njëkk bi nga xamante am na ko ci phase aller ñeel nag ligue des champions huitième de finale ci football moo tëradi ñoo ko